ma ma jëlaat euh, Evelyne Mondjouba ki je rappelle moo ñu teewal fële parcelle Evelyne. waaw xali euh, colonel maa ngi lay nuyuwaat. Euh, mhm. maa ngi toujours Parcelles Assainies mais HLM Grand Médine ni ma la ko waxee woon sànq. Mhm. bi ma jógee unité 21 dama dellu si waat école maternelle publique HLM Grand Médine. Mhm. fi nga xam ni tey jii ni ci suba fii la candidat bu Benno Bokk Yaakaar voté di Amadou Ba. mais un fait inédit xali colonel 18 heures dafa jot. ñu commencé tëj quelques bureaux de vote yi pour recommencer dépouillement bi ci mhm. la police daal ñëw génne si biti bi yëpp amul kenn ku ñu bàyyi ci biir muy presse nationale di presse internationale un fait boo xamante ne ni gëj naa am euh, ci Sénégal euh, depuis bi presse bi tàmbalee di fekkee li nga xamante ne ni moom mooy premier résultat affiché yi di ko jox bureau de vote par bureau de vote fii nii ci HLM Grand Médine loolu du ñu ko mën a am de vidéo toute la presse nationale et internationale boole woon leen nañ ci sax les observateurs de la CEDEAO après lañ leen mujjee bàyyi ñoom ci biir ñu ne mais presse bi rek moom mooy génn donc tëj nañu portail bi nga xam ni mooy portail yu école HLM Grand Médine fi nga xam ne fa la Amadou Ba euh, voté toute la presse est dehors et donc on ne pourra pas donner les résultats comme on le faisait chaque année bureau de vote par bureau de vote parce que les forces de l'ordre nous ont mis dehors Khady Colonel mhm. mu ngoog euh, un fait inédit comme ni mu ko waxee Evelyne Mondjouba dinañu la jëlaat euh, léegi sûrement incha allah c'est anormal. dépouillement parce que c'est la presse qui l'information Mhm. loolu moom c'est à déplorer il faudrait que au niveau supérieur qu'on puisse dire à ces forces de l'ordre qui sont aux parcelles ñu bàyyi presse bi ñu fekkee dépouillement bi parce que il y va même de la stabilité du pays bu ñu defee décompte bi ñu relayer ko yaakaar naa moo gën fuuf ëllëg ñu indi résultat yi ñuy contester parce que amul seen liggéey parce que tamit ci ñoom ci ci processus bi la ñu ko bureau de vote benn ci candidat yi fa la nekk foofu ca Grand Médine voilà donc ban ban ban spécialité moo am foofu ban spécificité moo am foofu ba mënuñ leen bàyyi ñu fekkee dépouillement des votes dañ ko war a fekkee parce que fii leader bu ci nekk sa bureau de vote dafa important mm-hmm. parce que après a ngay gis sax dañu naan moom dañ ko gagné bureau de vote am ou pas nañu bàyyi presse ñu liggéey seen liggéey parce que ci acteurs yi la ñu bokk on est membre intégrant du processus kon nag nañ leen bàyyi suba ba léegi ñu ngi liggéey en toute tranquillité en toute responsabilité pourquoi au moment du dépouillement on on fait sortir la presse certes dañuy génnee population bi loolu ça se fait parce que dañuy bañ militants yi di jéem a jubiler wala ñuy jéem a indi euh, peut-être ay trouble ngir mën a fausser décompte bi mais nag la presse quand même nañ leen bàyyi ñu assister parce que ci la ñu bokk mm-hmm. franchement c'est des méthodes yoo xam ne c'est inacceptable plus de transparence xam nga réew bu ñu ko tëggee ni mu tëggoo mhm. euh, ce n'est pas la